jërë ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, ñun ñu daal di am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu. Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu bi mbokk yi nag tey ñu invité Alé Dieng moom mi nga xam ne moom mooy directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal. waaye tamit euh, euh, muy njiital euh, union des forces citoyennes moo ko jiite tey nag waxtaan bi ci ñaari ponk lay doon dina ñu wax ci Aly bi nga xamante ni tey dafa yëngatu ci wàllum njënd ak njaay commerçant bi nekk directeur exécutif bi naa ko waa yeesal wax tamit ci Aly Dieng bi nga xamante ni moom moo jiite union des forces citoyennes mu jëm ci wàllum politique ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre di nuyu ñiy déglu rajo bi yëpp di nuyu aussi sama xarit Mbagnick Diop. Euh, ale ñu daal di commencé waxtaan wi ci li nga xamante ni tey mooy euh, manifestation yi nga xam ne démb euh, mouvement pour la défense de la démocratie doon nañu ko doon nañu ko amal ñu gis ne ñoom demoon nañ ci kilifa yëkkate woon nañu ay kàddu wax ñu daal di dàkkal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum manifestation Euh, ñu gis ne manifestation yi commencé waat na euh, ni ki démb yow lan moo ci sa xalaat. waaw manifestation moom mënul ñàkk sax ci réewu démocratie waaye kilifa diine yi bi ñu ci dugalee seen loxo violence lañ bañoon te violence euh, amul njariñ loolu moo tax ñu dugalee seen loxo ndax bu Sénégal yàqu seen Sénégal yàqu te ñoom kilifa lañ te itam ma dégg ci Serigne Abdoulaye Mbacke muy wax ni jàmm la bëgg ci réew mi. bëggul deret du fi tuuru ndax jàpp ne deret bu fi tuuru deretam la moom. taxawaay boobu mu taxaw nag mu taxawoon moom sëñ Ablaat ci la sëñ Muntaxa taxaw ak ñi ko jiitu ñëpp ci la aussi yeneen kilifa dina tarixe yi ba ci làbbe yi taxaw ndax ñoom ñëpp jàmm lañ bëgg a réew mi kon nag su fekkee reprendre nañ manifestation yi ñu autoriser leen ko mooy wane aussi ne ñi jiite réew mi bëgg nañ jàmm. Hmm. parce que bu fekkoon terewoon nañ ko mooy indi tolof tolof. kon nag ñi déglu lañ fay wax rek waaye na nekk lépp luy amal njariñ citoyen bu dul loolu moom ñu bañ koo def moo moo gën ñu def ko waaye démocratie nag dafa ànd ak activité. kon daal yow d' accord nga ci ay manifestation ci réew mi. waaw d' naa ci manifestation ci réew mi d' ñu autoriser ko mais surtout ñu fay def discours jàmm discours apaisement discours citoyen man dama gëm citoyenneté dama gëm li ñuy wax euh, démocratie ak lépp lu jëm ci civisme lépp lu koy jàngale rek te foog naa ne bu ñu dajaloo comme ni ñu ko defee. wax nañ fa message bu jëm ci luy renforcer citoyenneté ak démocratie ci réew mi bu dul loolu du am njëriñ. d'accord jërëjëf euh, Alla Dieng ñu daal di wax ci euh, li nga xamante ni tey moom mooy tournée économique yi njiit réew mi di Macky Sall euh, commencé waat tey jii si samedi ji ak suba tamit ci dimanche ji war naa dem ci bët gànnaaru réew mi maanaam ci Saint-Louis ak ci Matam maanaam ci Fouta fan yii ñu gën tamit doon na def ay tournée économique dem fu mel ne ay Kaffrine ñenn ñi jàpp ne Macky Sall dafay politique yow lan moo ci sa xalaat. bon tournée économique la ko tuddee nañ jàpp ne tournée économique la su fekkee am na politique dañ naan politique xeeñ na ci mais loolu naqare naa tàggale aussi ñaar yooyu dafa naqare tàggale li tax mu naqare tàggale mooy constitution bi dañoo def ne mën ngaa nekk président de la de la république nekk chef de parti parce que ci parti am la jaaro ba am coalition Macky 2012 ba am coalition Benno Bokk Yaakaar tax mu falu faluwaat 2019 nag moom tant que constitution bi mi ngi maye ne njiitum réew mën naa chef de parti ala kulli alin président la bu déplacé woo ngir tournée économique danañ waxaane xeeñ na tournée politique ndax président APR la président Benno Bokk Yaakaar la. loolu nag léegi waa léegi yow ñu ñu fàttali ñoo ngi nag laaj Alé en tant que. Euh, jiite euh, union des forces citoyennes moom la ñuy laaj ci tournée économique bi mais euh, ñoom président Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom dañoo lànk ne du du tournée politique tournée la. lan moo tax mënuñoo nangu rek ne politique rax na ci. non politique moom mënu cee ñàkk rax. léegi nag ndax dinañ ko nangu duñ ko nangu kooku seen mbir la mais ku ne xam na ne tournée économique lay def ndax mi ngi posé première pierre ci ay projet infrastructure mi ngi inauguré aussi yoo xam ne pare na mais loolu kenn mënu ko ko bañal ndax mooy président de la république léegi nag bu fekkee jub si nañ ay élection mu mu dugg fa ñooñu di waaj di ko teeru di reprendre seen activité di dajalawaat mais loolu xëy na politique kon moom moom ak ñi ko àndal suñ ko bañee aussi nit ñi teg nañ seen bët waaye nag moom bu ne man tournée économique lay def nañ jàpp ne tournée économique lay def kon léegi président la république mooy déplacé wu waaye politique boobu ko ca laal la ca laal mooy président APR ak président président Benno Bokk Yaakaar ak ñi muy fekki danañ créer emblème danañ def ay ay ay t-shirt danañ def photo Macky loolu ku ko mën a dindi kan ma mën a xaajale ñaar yooyu man de mënu ma ko duma ko jéem sax. d'accord léegi tamit am na lu bari loo xam ne métti nañu baree bari ci tournée bi nga xamante ni président Macky Sall ma ngi koy def ndax ñenn ñi jàpp nañ ne fi Sénégal toll ak euh, nit ñi ni ñu amee ay jafe-jafe Macky waroon naa dem même bu dee dafay dem di inauguré wala muy def tournée économique mën naa ànd ak ay experts ak ay économistes yoo xam ne. gox bu nekk am na lu mu yellool boo demoon ay ka euh, Kaolack mën nga leen wax wàllu mbay mi économiste yi si experts xalaat si nga dem Ndar wax ci wàllum jën yi experts yi xalaat si mais mboboor mi nga xamante ni moom lay àndal ñu luyee ay ay ay ay hôtel euh, yàq ab jël ab carburant bu bare bare jëfandikoo ko ñenn ñi jàpp ne mbumbaay moomu mënoon naa ñàkk fi Sénégal tool yow lan moo ci sa xalaat. li ma ci sama li ci sama xalaat premièrement mooy euh, jërul ay experts sax di wax la xew ci gox ya mais. région bu ne am na gouverneur région bu ne am na chef de service régionaux département yi aussi ñooñu mën nañ koy remonter information yi mu soxla waaye su fekkee ne aussi déplacé wu na fa muy dem bu fekkee ne nee nañ mu bàyyi leen ñu ngi séddale xaalis mais xaalis bi joxuñu ko ay malien xaalis boobu ñuy séddale joxuñu ko ay malien joxuñu ay mauritanien ay sénégal lañ ko jot te ñoom aussi ay citoyen lañ donc loolu loolu beneen affaire la donc dara kenn mënu ko mu def tournée di inauguré lu mu lu mu diggee woon problème bi kay mooy ndax lu mu diggee woon lépp def na ko am na lu mu ci def am na lu des bu dem di inauguré loo xam ne nii amoon na nangami at ci ginnaaw defoon pose première pierre mais na ko population yi jariñoo xaalis ba mu yor aussi jëlu ko di ko sànni ci ay palanteer ñu ngi koy jox ñu koy accueillir xaalis bi di wër am ñu ci jariñoo am ñu ci faj seen soxla loolu aussi boo nee waa APR la waa Benno Bokk Yaakaar ah, wax dëgg yàlla joxu ko ay ay ay ay ay ko ci géej ñam ko jox ay sénégalais lañ ñoom ñëpp ay sénégalais lañ donc danañ ko jariñoo maintenant nag la ma waxoon jëruma ci dellusiwaat tournée économique la moom la wax laal na politique naqar naa tàggale. waaw mais xam nga euh, leneen li nga xamante ni ñun tamit bëgg nañ si euh, insister. moom mooy su dee dafay def tournée boo xamante ni ñu bëri jàpp nañ ne politique moo tax. daf koy def ngir suqali euh, benn Bokk Yaakaar. su doon tey ñoom seenub coalition. dañuy cotiser xaalis ndax fi amul benn parti presque bu fi cotiser bu doon ñoom dañoo jël xaalis bi dem def seen tournée ci seen turu parti wala seen turu mouvement boobaa kenn mën na see bañ a am lenn loo ci wax mais jël li nga xam ne nag mooy alalu askan wi dem di ko jox say militant loolu la nit ñi di wax Abdou Khadre président bi dem tournée nii muy def nii xaay ba muy séddale militant yi jógewul ci trésor mu ngi jóge ci ay fonds politique am yoo xam dañ ko voté une fois par année muy nangami milliards yoo xam ne nii ay fonds politique am la te loolu constitution moo ko may bis am fu mu jëlee xaalis mais du xa du xaalisu trésor lañ jël di ko séddale. mais mais kon yow d'accord nga ci euh, dem di mi nga xamante ni ñoo koy topp dem jël carburant loué ay li ñuy lekk yooyu yëpp ak fi Sénégal tollu ak mbas meeg sonn gi nit ñi sonn. man xam naa ne nit ñi sonn nañ parce que pouvoir d'achat sénégalais néew na doole mais dama ne la président de la république acteur politique la. ñi ngi jëm ci ay élection am na coalition léegi néew ma dafa xaaj di ko tasaare di ko séddal di ko mbumbaay mais xaaj bi ñam koy jox ñenn ñi ay militant la ñenn ñi ay acteur culturel la ñenn ñi euh, ay ay taskati xibaar yi ko topp la mais xaaj bi jëru ko di ko tasaare ci mbedd mi donc situation bi réew mi métti na waaye nañ xool est-ce que président investirul ci ay ay secteur d'activité maanaam bu fekkoon ne deful fenn fen dara ba pare jël xaalis di ko foofu ñu mais secteur d'activité bu ne ma nga fay am na projet yu fa ngi pose première pierre fii war a inauguré lu ñu pose une première pierre wala war a de soit alors pour di léegi dama ne activité économique la moom la wax nañ nañu jàpp ne activité économique mais su ca boolee politique mais dafa naqare tàggale parce que moom aussi acteur politique la ñami fekk aussi acteur politique la te ñi ñi ngi jëm ay élection donc ñaari ñoo dañoo ànd ay jumeaux lañ naqare nañu tàggale loolu mooy sama position. d'accord euh, Aly yow yaay euh, njiitul la euh, union des forces citoyennes. Euh, yaay directeur exécutif bu UNACOIS yeesal tamit euh, ñu daal di wax ci nag li nga xam ne tamit moom mooy élection locale yi nga xam ne euh, moom la ñu daal di moom la ñu daal di dëgmal ci Sénégal jàpp nañ ko janvier deux mille deux mille vingt deux ndax yow àpp boobu noonu jàpp nga ne bu ñu fa yeggee danañu mën a amal élection. bala ñu jàpp dat toxal nañ ko toxalaat toxalaat ci li ñu wax am na ci toxal goo xam ne nii sax du ci nguur gi mais ci opposition bi la. waaye surtout pandémie bi laal na ci muy mbas mi te jeexawul yàlla na jeex ak jàmm euh, njort naa ne administration bépp mettre nañ ko en branle pour ñu respecter calendrier républicain élection yi am janvier 2022 su amul loolu moom déréglement boobu moom nguur gi at nu ko te kooku citoyen dinañ mere réew mi politiciens dinañ mere réew mi donte politiciens yi ñu néew lañ ci ci citoyens yi parce que citoyens yi tey le, le, le les consommateurs les comment encore les la population sénégalaise 16 ba 17 millions d'habitants boo ci boolee sax ñu nekk extérieur euh, calculer ne daanaka moitié bi sax ñooy inscrit ci liste électorale yi waaye calculer aussi politiciens yi nekk ci parti politique ñu néew lañ par rapport à population électorale bi mais date boobu moom dañ ko respecté parce que dañ ko toxal toxal ko toxalaat ko maintenant mel na ne am na mel na ne kenn waxatul ci date bi fi ne dañuy wax ci nan amin wi nan lañ ko war a defal lañ war a wax loolu opposition bi duñ bàyyi nguur gi mu def lu leen neex nguur gi aussi ñu sabote maanaam administration Sénégal gi yëpp finance ak yëpp day mobiliser wu ngir élection jaar yoon mais ministère de l'intérieur ñoom ñoo koy organisé loolu nag euh, seen euh, en tout cas li ñu respecté date boobu bu ñu ko deful dana am day perturber sax déjà élection législative yi war a ñëw 2022 war na am élection législative na am 2024 donc ñu ko respecté wul dana dana dana màbb lu bëri te loolu gënul ci réew mi. mais Sénégal li ñuy def ay élection ndax mën nañoo def élection locale ci même année bi tamit ñu def élection législative. moo tax sax am na ñu doon proposé ñu def couplage. maanaam élection locale yi nii mënoon naa ànd ak élection législative 2022 je ne sais pas pourquoi mënut am su amoon ñett ñetti au ñu am ñetti élection ñaari élection la ñu am fii ak 2024 euh, parce que élection day jël xaalis yu bëri mais surtout day jël temps sans compter que un mois avant campagne électorale kenn dootu liggéey xaaxaloo ci mbedd mi wër réew mi bon benn bis ngay noppal ci suba nga ñu vote mais loolu boo paree. ñu war a tàmbaliwaat liggéey ni ñu commencé waat ubbiwaat campagne électorale ba paree muy législative ni ñu pare aussi commencé jëm ci présidentielle en fin de compte nit ñi duñ liggéey parce que yow même fekkee da ngay liggéey ne liggéey rek nga gëm sax ku la jege wala service bi nga nekk wala say partenaire wala say fournisseur wala say client ñëpp dañuy nekk ci campagne bi bu ko defee loolu day am day am effet néfaste ci say activité mm-hmm. voilà d'accord léegi yow euh, Alé Dieng en tant que euh, koo xamante ni tey yow yaay euh, président union des forces citoyennes Euh, élection locale yi di ñëw fan nga nekk candidat. man na euh, Sagata Guède laa dëkk département Kébémer mais Dakar lay voté euh, am na nag ay xale yu ne ci dëkk ba ak xale yu góor xale yu jigéen ak ay kilifa yoo xam ne nii ñi ngi waxtaan ak man pour ma nekk candidat foofu ci mairie bi loolu moom xam nga bu ubbee inscription rek sa carte nga yóbbu wata ki inscrit foofa nekk fa waaye nag jógu ma ne man damaa bëgg a nekk maire. mais ñooñu nga xam ne ñu ngi koy romandaat di wax dama naan leen na nekk seen combat parce que ñoom bu ñu dajaloo ne àll lañ bëgg bu nekk maire boobaa dana ñëw ci géew bi waaye fi mu nii du ma ne bërit ne man damay nekk candidat maire parce que euh, ka fa nekk am na liggéey li muy liggéey liggéey ba sax mi ngi liggéey li ma gis moom mi ngi liggéey waaye des na ndax jigéen ñeeg ndaw ñeek ki am na leneen lu ñu bëgg su fekkee loolu ñu bëgg ci samay loxo la nekk nag bu ko yàlla dogalee dinaa fa nekk mais nekkul fi mu doon nii daal li li sama priorité man ak UFC mooy candidat mooy élection législative moom lañ gën a priorité ko local fi mu euh, lan moo tax loolu. non non c'est-à-dire xam nga ah, am na euh, maanaam euh, ni ñu ko waxee ora wala pas aura entre guillemets wala xam xam gu la nit ñi xam goo xam ne nii ñu la xam ci ci local. au niveau communal voilà la xam au communal Ah, samay mbokk xam nañ samay dëkkandoo xam nañ ña ma jàngandool ña ma yoroon ñoo màggandool xam nañ ak aussi ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci man waaye ni ma xamee ci yeneen gox yu dul sagata sax moo gën a bari que ni ñu ma xamee sagata donc nag am naa droit ci loolu sukkandiku ne UFC dañ ci waxtaan ba juboo dinañ ko sax dañ ko sax gën a dëggal bu ñu eggee ci suñu. Ah, suñu assemblée ah, waaw non mais àll man. suñu assemblée bi am bu ñu ci eggee dañu gën a dëggal. maanaam dama bëgg wax ne bu ñu fa àggee danañ ci jël décision waaw ah, lool loolu rek laa la bëgg wax man def def mu ci publicité dama bëgg ne bu ñu fa àggee danañ ci danañ ci jël décision mais fi ñu toll nii élection législative lañ gën a prioriser que élection locale bu ngeen demee assemblée générale waaw bi mooy seen premier assemblée générale bi mooy deuxième assemblée générale ordinaire mhm. waaw maanaam dañ ma faloon université USC il y a six ans daaw la ñu waroon def assemblée générale mais mbas mi tax ñu daax ko léegi nii dañuy def assemblée générale renouveler bureau bi léegi nag yaakaar naa dañ may falaat parce que ñi ma ko seqal am nañ ci man yaakaar bu ñu ma falaatee boobaa dinañ fa jël résolution boo xam dañ naan UFC lii la wax te UFC lim nar a wax weesuwul ne ñun dañuy dem législative ànd ak coalition ou non maanaam coalition ñeneen ñëw fekk ñu nekk benn liste buñ ci eggee ñu xam ba xam. mais mais mais euh, Allé ba tey affaire bi des naa leer sama bopp. Alla Alla euh, Dieng. Mhm. Euh, affaire bi des naa leer sama bopp. ndax euh, yéen da ngeen a bëgg def assemblée générale. pour dem ci élection locale yi. non assemblée générale pour renouveler bureau. renouveler bureau voilà léegi nag danañ ci jël décision suñ tableau de bord wax ko léegi nag. local non bu ngeen renouveler bureau il faut ngeen wax ci élection locale yi. non non xam nga local local la maanaam fi ne mën nañu am ay suñu membres yoo xam ne ku dëkk Kédougou ku dëkk Vélingara ñoom ka fa nekk te bokk ci ñun bu ko neexee ne candidat USC la foofu wala candidat wala candidat benn benn coalition bu ànd ak ñun. mais man fii Alla Dieng tey néewuma candidat mairie Sagata la waaye dama ne ko lu ëpp ci waa Sagata wala ñu bari suñ ko soxlaa ma sumee ko dem ca géew ba mais boobaa USC daf may ngemb mën naa ko def aussi ci biir coalition mais mais bu ñu eggee ci assemblée générale bii renouvelé biir ba xam nga dana am résolution résolution mooy danañ am tableau de bi ne suñu mandat 5 ans bi UFC lii na la doxal danañ ci boolee local danañ ci boole législative danañ ci boole sax présidentiel lañ nar a def buñ ci àggee d'accord léegi sànq tamit euh, nee nga euh, bu dee tey sagata gi nga xamante ni fa nga dëkk Euh, xam nañu la say mbokk ak ñi nga jàngandool mais au niveau national ou international xam nañu la mais est-ce que Alla Dieng mi ñu xam au niveau national bokk na ak Alla Dieng mi waa Sagata xam ndax yow Alla mi ñu xam au niveau national est-ce que euh, ci union des force citoyennes lañ la xamee au niveau national ou international wala Alla Dieng directeur exécutif waa e, Yeesal la ñu xam au niveau national international. au niveau national xam nañ ma déjà ci. UNACOIS déedéet am na lu jiitu UNACOIS maanaam wala boo nee UNACOIS am na leneen lu ñu ma xam ci lu UNACOIS xam nañ ma ci UNACOIS xam nañ ma ci m def na ñaari at yoo xam maa yore seen communication membre fondateur M23 la Alioune Tine moo ko mën a témoigner xam nañ ma ci euh, benn Bokk Yaakaar parce que membre fondateur laa ci benn Bokk Yaakaar xañ na ma ci daayira des étudiants Mouride depuis Sëñ Abdou Lahad parce que bokk naa ci élèves yi sos daayira des étudiants booba élève lañ balaa muy nekk isu tarixee léegi nii xam nañ ma ci UNACOIS aussi UNACOIS maa ngi ci bokk 97 fekk ma nekkoon Gambie. yooyu yëpp par nga si gën a fës. non non yëpp yëpp bu ñu dajaloo dama naan Sénégal xam nañ ma rek. waaw mais àll tey euh, M23 mënoon nga yor seen communication. Ah, mais àll mi yor nga seen deux seen communication ah, deux ans mais àll mi ñu xam ci UNACOIS yeesal. Ah. boobu tamit euh, jàpp naa ne mooy àll bi Sénégal yi gën a xam. wala wala mooy benn jëmm bi rek. xam nga mooy benn jëmm nit ki ko mooy apprécier ci li ma xamee am na ñu ma xamee ci leneen. am na ñoo xam ne nii euh, Gambie lañ ma xamee sax parce que Gambie def naa fa cinq ans yoo xam ne nii maa gënoon si ambassadeur bi foofu. mais lan nga tax nga bëgg a farataal élection législative kay élection communale. non élection législative c'est parce que même UFC dafa nekk ci quatorze régions nekk na ci neuf yi. UFC bi muy jiite nii sur 14 régions Sénégal ek nañu ne su fi ne sama yéene mooy mu daj 14 régions yëpp ba ci diaspora bi am na aussi ñu ma représenté diaspora bi Allemagne France Italie ak diaspora africaine ak ak États-Unis ak Canada fu ci nekk am naa fa ay ndaw mais nag des na implantation bi des na damay wane ne maa ngi maa ngi ci yoon wi léegi nag loolu su su loolu code wees na wees na frontière sagata loolu laa bëgg a wax. mais nga nekk maire ba pare. waaw ah, mais bala may nekk non non jéem a nekk maire euh, maire defuma croix ci kaw man man na damaa am sax yéene ëpp sama yéene mën naa romb sax député Abdou Khadre bul ma yemale ci maire Sagatta mais bu ma nekk neex candidat 2024 élection présidentielle est-ce que sa jaar jaar wala sa carnet d'adresse wala sam njàng may na la ko laaj ko sénégalais yi da koy laaj sénégalais yi wala nga laaj ko ñi ma xam directement man man sama du sa du affaire njàng sax xam nga déjà affaire présidentielle du affaire njàng gis nga présidentielle non non président am na lu jiitu loolu gis nga présidentielle mën na nekk bidiw mën na nekk lu suñ borom dogal muy destin yàlla tracé ko kenn mënu kenn mënu ko mooy Macky mi bi muy falu kenn xalaatu ko woon am na ñu bëri ñoo xam dañ ne Abdoulaye Wade mi mu remplacé xalaatu woon nag Abdoulaye Wade sax Idriss Seck la gënoon ragal ak Moustapha Niasse mais bi ko suñ borom dogalee moo ko jaarale fi jaar donc dama la expliqué ne man Alla Dieng fixé sama bopp limite parce que su ma fixé sama bopp limite weddi naa yàlla doomu aadama bu nekk fi war a jaar suñu borom moo koy n te dara yow sax man ma xam ñi ma xamul sax ma sama déclaré sama candidature 2000 2004 boobu bi ñu falee bi ñu noom bi ñu bi ñu daanee Idriss Seck nommé Macky Sall balaa Macky Sall toog déclaré naa sama candidature pour 2007 ñu bëri fàtt nañ loolu donc te ambition mu yëgalee leen Cheikh Abdou Khadre gis nga ambition du xomaag du ruy du lab du faatu du suulu boo xase bu xase nekk ci mi ngi ci yow léegi loxo yàlla mais fi nii dama ne la sama yéene romb na mairie Sagata. mairie sagata ma ko dama cey def la ma war a mais yéene naa lu ko ëpp parce que damay yéene jariñ sagata lu ëpp maire maire maire am na lu mën ak lu mënut député am na lu mën ak lu mënut mais président moom bu xasee ba falu yàlla man man may na ko kàttan yëpp parce que Macky Sall mi lu mu nekkoon nekkuloon maire Fatick donc loolu Alla Dieng mii di taalibi Serigne Touba di murid saadix sama taaw Serigne Touba laa ko tuddee kon xam nga yemale woon Serigne Touba ak dara di jullit àqan du ma fixé sama bopp man ay limite ne man fii laa war a yem su ma ko defee wedd naa yàlla parce que li yàlla bind ci kaw suuf doomu aadama mu ci gën a tedd te lu ne def na ko ci doomu aadama. Euh, tey euh, Alla Dieng yéen waa des forces citoyennes. locale yii di ñëw. yéen lan ngeen ci xalaat dama bëgg ngeen dem yéen lii ngeen. ci xalaat lii ngeen lii ngeen ca fas yéene. soo yéen waa waaw UFC lim nar. dana ko wax ci bisu assemblée générale mais avant boobu. dañu nekk ci biir coalition ñu ngi bokk ci biir Macky du sax mu bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar donc dañuy dañuy concerté wu ak ñeneen ñu mën a ñëw ëllëg ak ñooñu buñ demee aussi ñeneen xam nga xam nga suba li xew suba ci waxtu bi mënuma ko xam mais dama la wax suñu ay mébét waaw mooy man suñu yéenee mooy participer ci élection locale yi ku ci nekk sa gox bu la intéressé wala bu wooyee même cas sama fi sama bi ma wax nii moom laay wax ku nekk mu am du ma ne nii lañ nar a parce que am na ci loo xam ne nii waxtaana guñ ci sax suñu biir mais am na loo xam ne dañu bokk coalition waruñoo bokk ci coalition par bedd ko du tëral programme am na loo xam ne dañ ko waxtaan ci biir Macky 2012 te ñu ngi ci. d'accord waaw voilà. jërëjëf euh, Alla mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi. Euh, ñuy waxtaane nag euh, lu soxal wàllum euh, actualité élection locale yi nga xam ne moom la ñu daal di dëgmal danañu ñëw tamit ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum économie ba mu yaatu mais élection locale yi ci coalition benn bokk yaakaar gis nañ ni ñenn ñi jàpp nañ ne ay gox yu baree bari boo muy tuuli daal président Macky Sall dina fa am ay jafe-jafe ci lu lu jëm ci taxawal benn list boo xam ne du am benn list parallèle lan mooy saxal waaw loolu nag métti na méttiwul c'est-à-dire am na ci loo xam ne nii localité bi euh, élection locale dafa dëppoo ak réalité locale am na loo xam ne locale bi ñoo koy décider te réalité bi nekk fii du nekk à côté du nekk ca bële du nekk ca bële. Mm-hmm. mais benn Bokk Yaakaar aussi euh, ba mu juddoo ba léegi bis ñu xëyee ñu ne dana tas tey yii Benno Bokk Yaakaar dana tas. mais amatul doole nag dama woon doole. bon loolu ñu nekk ci biir ñoo ko xam te yow mën na laa ump parce que man maa ngi ci biir ndax fu ñu réunion leader am na ci loo xam ne ko fekkee am na aussi nag loolu loo xam ne dama ko fekkee. parce que léeg mu nekk leader diggante institution yi muy ki nekk assemblée nationale ki nekk conseil économique sociale ki nekk HCCT euh, wala et cetera loolu léeg mu nekk leader yi ca kaw mais am na ci loo xam ne dama koy fekkee parce que membre fondateur laa ci te réunion yu ci bëree bëree bëri fekk naa ci ñaar yoo xam ne am na palais président am na ñett sax yoo xam ne am na méridien président donc am na xam naa ko fekkee réalité yi ku nekku ci biir mënoo ko xam mais ñi nekk ci biir dañu naan ah bi yoon de dana tas bi yoon de du mucc bi yoon de tasaaroo lay def ba léegi nii ñu bëri ñi ngi naan dana tasaaroo mais nañ bàyyi ba ci ci pandaw ji ñu xool léegi nag coow mënu ñàkk que ambition yi dafa wute te ko ne am nga droit am ambition man bu ma ñëwoon sagata ne man am naa ambition pour nekk maire sagata fekk am na fa keneen koo xam ne moom la benn boo a samp dem wax ne du ma ci ànd mais bu ñu demee waxtaan bu jubóo danañ am loo xam ne nii danañ danañ ci déggoo dañ ci déggoo kii bàyyi fii ñu jox ko feneen wala ñu mu nangoo bàyyi fii ñu ñu jox beneen kandidaam feneen loolu day am te loolu euh, gis ngeen cool yi commencé commencé par exemple Kaffrine par rapport ak ministre bi ak maire bi dégg nga Saint-Louis dana am coow Mary Teuw Niane ak Mansour Faye c'est tout à fait normal fii Parcelles Assainies moo nar a gën a metti parce que ñaari ministre xaw ma ñetti ministre ñetti ministre d'état ah je ne sais pas ak. ak département Dakar ak dina metti mais loolu gis nga bala moo jóg bala moo jóg bala ñu ca àgg la coow li di jóg te loolu euh, nu am na coow loo xam ci pindu teen bi la yem. xam nga li wax baax waaw léegi am na ci loo xam ne barañ ci egg Macky dana ko mën a gérer en tant que président coalition bi ou bien sur le plan local ñoom ñu déggoo bu ñu déggoo day entendre rek bu fekkee dem nañ bay di coono mën na arbitrer mais moom wax dëgg yàlla ba mu dalee yoree coalition ba léegi ba léegi ah man de coow lu ci am aussi am gis naa nu ñu koy fayee. voilà mais euh, élection locale yi tamit euh, am na yeneen enjeu ndax ñenn ñi est-ce que bu ñu jàppee ne. bi mooy mujjantaloo président Macky Sall est-ce que duñ jéem a dem ñoom tam pour nekk maire pour nekk au moins euh, am benn légitimité politique. waaw loolu am nañ droit wut ko parce que politique aussi politique la te politique àdduna la yem. dégg nga kon am nañ droit wut ko maintenant nag pour Macky Sall ndax dana présenter 2024 ou non. kooku man bu bu ko defee dana indi coow lu mel ne li fi amoon 2012 waaye yaakaar naa balaa boobu dana ressaisir mais loolu aussi ajuwul ci nit ñi ajuwul ci ay ma militant ajuwul ci opinion bi mais mi ngi aju ci conseil constitutionnel waaye man yéenewu moom mu mu mu présenté waat. bëggoo mu présenté dama ne yéenewu moom mu présenté waat na différence. man yéenewu ma waaw yéenewu moom mu présenté waat parce que day indi coow rek loolu laa bëgg wax daal. maanaam yow boo sañoon de présenté bu ma sañoon du présenté waat 2024 boog ci gàttal. parce que day indi coow li fi lu raw li fi indi woon 2012 li fi amoon te bakkan mën na ca mais su dee war naa présenté wu te ñenn ñi jàpp nañu moo gën ci Sénégal tamit. waaw boobaa conseil constitutionnel mooy tranché ak ay ak mais man su ma sañoon du présenté parce que day indiwaat coow rek man kay dégg nga li ma wax. maanaam boo sañoon du dem sax conseil constitutionnel. xam nga dafa xam nga nga nga euh, nga ak mu jàll ñaari étape la. Mhm. su ma sañoon du sax na wut ko ko wutu mopp jàmm ci réew mi bu du loolu même bu ko conseil conseil dagarale mu jàll sax coow dana am tabakkan ma naroon moo tax man la yéene wu moom présenté wu voilà mais bu boobaa est-ce que euh, coalition Benno Bokk Yaakaar euh, jàpp ngeen ne àlla dina am candidat bu dëgër boo xam ne euh, dina mën a jël réew mi bu boobaa ñu organise ay primaire ci biir bu ñu organiser primaire ki gagné bu nekkee candidat benn bokk yaakaar ñëpp ci ànd. d'accord mais yow ñi wax ne président war naa def deuxième mandat war na koo jéem a laaj. yow jàpp c'est que nag attention constitution bi dafa am lu lëndëm foofu xam lu tax lu lëndëm constitution bi définir ba léegi définir mandat sept ans wala cinq ans daf ne nul ne peut exercer deux mandats consécutifs xam nga loolu leer la mais waxul ne mandat sept ans wala mandat cinq ans loolu loolu ñi doon tabax affaire bi te Babacar Gueye mu njëkk alerté nit ñi Babacar Gueye euh, professeur ba mu njëkk alerté affaire bi loolu lu lëndëm nga lëndëm googu xam nga gars yi dañ ko gis bàyyi lu ba léegi dut dut ngi ci interrogation bi ngi ci mais pour man moo tax ma ne dut boobu man Macky da ci waroon a joggi ne man du ma présenté wu moo gën ci moom pourquoi il est encore jeune mën na dellusiwaat ëllëg mais surtout war na am yeneen fonction sur le plan international comme comme Abdou Diouf amoon comme Boutros Ghali li mu amoon Macky Sall mérite na loolu mais bu présenté woo même bu ko na constitutionnel dagaloon coow lu bëri dana fi am balaa muy estompé wu te bakkan dana rot loolu ko fi jar déggu sëñ Mountakha li wax Sonko barki démb poñetu àdduna mi nguur àdduna est que jar na bakkan rot loolu man foofu mooy sama position man xam naa ne bu dee wàllu droit am na am na droit yu ne war naa présenté waat ndax waxuñu mandat 5 ans ak 7 ans am na ñu ne warul présenté waat mais man pour man doute boobu comme mi ngi fi te loolu moo amoon 2012 fukki bakkan ak ñaar rot na ci doom Mamadou Diop loolu bu ko Macky defaat Macky daan yore daan yore mer gàddoom ma bokk ci ñi daan ànd ak ñuy xeex Abdoulaye Wade loolu bëgguma mu ñëwaat. donc man yéenewu ma mu waat te bokk naa ñi nga xam ne dañu toog moom mu ma jox kàddu bon man ñeme naa ko ne ko président rek même bu man même bu la conseil conseil ne am nga ci droit ba jàll sax nga falawaat ci réew mi nii day metti te bakkan dana rot lu ko fi jar. Euh, jërëjëf euh, Alla Dieng mais opposition bi tamit ñoo ngi waajal benn coalition pour élection euh, élection locale yi loolu lan mooy sa waaw ma fàttali ne loolu am nañ ci droit lu yanu maanaa la te réew aussi dafa war a am opposition waaye nag ñoom seen biir am nañ ay difficultés yoo xam ne nii tant que nii ruñ ko ñoo ñoo gën a jaxasoo sax Benno Bokk Yaakaar. parce que Benno Bokk Yaakaar lu mën di xew am na ngeen kilifa mais opposition bi kuy seen kilifa ta loolu dafa baax ci réew ñu xam leader incontesté leader incontestable xam ne moom fédéré na euh, euh, fédéré na opposition bi yëpp jàkkaarloo ko parce que opposition day tax pouvoir liggéey xam ne wax baax day tax aussi dans euh, démocratie renforcée wo day tax aussi lim alternance mën a am ñu naan respiration de la démocratie man loolu contre loolu waaye nag ñoom am na leen topp loo xam ne nañ ko la jën biir ñoom bu fu ñu groupé ñoom ñëpp pour kenn ne kanam jiit li ñu ñëpp jafe na de comme ni ko Abdoulaye Wade nekkee woon ah, d'accord léegi euh, ah, ah, je veux dire mais nekk naa ci mouvance présidentielle mais am naa liberté de aussi te man yoruma parti politique mouvement citoyen laa laa man man sama combat combat citoyen assises nationales yi noonu laa bokkoon ci MB23 te loolu laa nekk sax ci biir Macky 2012 ñoo xam nañ ko bu ñuy lim parti politique dañ naan parti politique et mouvement parce que man yi nag waroon pour ñu appliquer maa ngi ci maa ngi ci te sama yéene mooy bala ma faatu ñu commencé ko appliquer ci Sénégal léegi euh, Alla Dieng yow sànq si biir wax tamit nee nga ci M23 yow yaa yoroon seen communication pendant deux ans yoroon ko deux ans pendant deux ans léegi yow ak sa mouvement bi nga xamante ni mooy UFC euh, union des forces citoyennes. nga ne yow du mouvement communal. du mouvement départ du ah, mouvement communal du départemental du régional du national ah, international. ndax fenn fu nekk wax nga fa léegi. Uh-huh. benn question bu précise. mooy yéen depuis 2012. yéen seen mouvement bii. Uh-huh. Euh, ndax gis ngeen seen bopp. ci ànd bi ngeen ànd ak président Macky Sall ndax dañ ko déggoon mu ne. Hmm. ànd gañeendoo géreendoo waaw ah, li lii li lii kii li euh, président la République defar UFC moom du ko wax si du ko wax si rajo mais ànd bi jox nañu cër des na nag des na mooy am na. lu ñu firndeel jox cër bi. non non maanaam lu may expliquer mooy xam nga xam nga àndandoo euh, gañandoo gérandoo mi ngi àndandoo gañandoo gérandoo ak ñi nga xam ne mooy partie yi gën a mag ànd ak moom. loolu aussi dafa yanu maanaam parce que cent partis bu àndee ak Macky aussi muy Benno Bokk Yaakaar doole yi tolluwuñu il faut dire la vérité parce que lay AFP di PS wute na ak USC USC juróom-ñaari at la am waaye am na loo xam ne ay moyens financiers mooy tax sa parti samp ci réew mi gën a yokk xaj na loolu man amaguma ko mais nag bokk naa ci ñi nga xam ne Macky Sall dañu déglu donc loolu lay déjà cër la fu ñu dajee surtout rencontre yoo xam ne ni euh, mbooloo ñoo fay daje lu mu néew néew néew dana yëkkati kàddu jox ma. te dama ko wax li ma xalaat ci réew mi te itam façon bi ma koy waxee aussi moom dana xam ne nekkuma fi di ko taggale maamam comme ñeneen ñi ah, dama ko def non non ko def ma sañoo ma sañoo koy bokkandoo bokk boo xam ne nii dañuy añandoo sax mu am table euh, Sidiki Kaba ma nga foon ak euh, maître Oumar Youm ak Aminata mais bi ma ma joxee kàddu dama ne ko monsieur le président nangam de moo tax nga wooñu fi waaye soo ma ko mayoon ci nangam laay wax ñeneen koñ saal ba am ñu d'accord loolu ci loolu mais président dafa dafa dal seen ko ne noppi leen kenn du fil gémmiñu walis te xamoo gémmiñu sàmm te xamoo muy walis daal ne àlla waxal ma wax ko ci situation économique réew mi te pourtant booba affaire booba affaire parrainage moo ñu wooñu mais man situation économique réew mi laa ko non moo situation chambre de booba xam nga chambre de commerce amoon na coow temps yee balaa muy am coow informé naa président ne ko balaa yàgg da nga dégg coow lu taxoon nga wax dina coow non non dama ko bi ñu wax euh, Daouda Thiam remous ci wàllu gestion bi ci wàllu ni ñu bëgg a changer président parce que intérim la woon te intérim bu yàggee dootu am crédibilité dootu am légitimité loolu wax naa ko président te bi ma koy wax mi ngi jël bic di jël note mi ngi yor bic di jël note donc ba ba affaire yi weesoo bi bi coow li jógee xam nga coow li jógoon na bañ. Euh, bureau secrétaire général ba lakk. ñu fal keneen syndicat yi di coow. mais bi mu ko déggee kenn ku ko jegoon ah, envoyé na message ni ma yow li nga doon wax président. président même defoon nañ fi benn audit. Ah, ba léegi sax am na coow léegi nag ginnaaw bi la fa Daouda Thiam jógee ñu fal keneen ku ñëw Ablaye Sow mais ba léegi coow lu des na mais chambre de commerce yi lan mooy njëriñ li. waaw ah, chambre de commerce nag bu tegoo ci yoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yore lépp lu orientation économique ak secteur privé ci réew parce que chambre de commerce bu Dakar surtout moo war a tiire chambre de commerce yi nekk ci région yi mu leen tiire ñu yéeg ndax ñooy économie locale la moom mu yore économie nationale chambre de commerce moo war a nekk interface diggante secteur privé ak nguur gi mais chambre de commerce moo war a nekk aussi interface diggante secteur privé Sénégal ak sur le plan international donc njëriñ am na solo waaye nag ñàkk remplir la mu war a remplir moo tax organisation patronale yi juddu bari bu njëkk GES moo fi nekkoon. waaye GES ci la UNACOIS jóge CNP ci la CNES jóge léegi ñaata organisation e ah, nañ waaye tolluñu nag parti politique yi nag ndokk bañ ci tollu tolluñu ne aussi syndicat yi. donc chambre de commerce am na njëriñ. mais chambre de commerce njëriñ la est-ce que état ma ngi leen di déglu fi ne am na ay coow te dafa am chambre de commerce Dakar am union des chambres de commerce mais li ma la man a wax mooy am na réforme. boo xam ne nii jaar na conseil des ministres ba ñu ko mu jaar assemblée nationale ba ñu voté ko mais réforme bi appliqué guñ ko léegi nag kañ kañ la élection chambre de commerce gëj am 2014 ba baa léegi ñaata 7 mm-hmm. ñun bu ñu mujjee def conférence fii wax naa ko en direct man ko président la République su ñu de su sa ministre du commerce deful organisation élection chambre de commerce boo mu après 2024 lay parce que fii ba 2024 coowul politique la lay doon boo xam ne nii diwa nga ci diwa nga ci président nga ca ministre parce que ministre ma ngay bëgg a nekk maire Kër ma nga ma nga bëgg a politique euh, Ziguinchor te mooy ministre du commerce waaye suñ jubluwul dañu nekk di wax ba élection législative ba élection présidence 2024 après te booba kon danañ toog 12 ans 15 ans élection chambre de commerce euh, nag ci wàllum euh, économie bi sax xaw nañ ko commencé xaw nañ ko commencé laal en tant que directeur exécutif bi UNACOIS Yeessal Euh, nationale yi seen Sénégal euh, yéen da ngeen ñenn si yéen dañuy faral di tuumaal euh, nguur gi kane day favoriser wala ñiy joxe marché yi wala attribution marché wala apple d'offre yi ka dañuy gën a jàppale ñi nga xam ne ñooy entreprise étrangères yi te ñoom jàpp nañu loolu su wéyee dafay rey li nga xam ne mooy secteur privé national bi lan moo ci sa loolu constat général la. Euh, jox nañ bopp lool waa extérieur négliger entreprise yi nekk ci réew mi wala buñ leen di jox dañ leen di masal ay sous-traitance loolu moom jàmbat nañ ko bu njëkkee def évaluation PSE man maa waxoon ci turu secteur privé wax naa ko ci kanam presse bi donc euh, benn aspect rek moo ci nekk mooy marché yi rëy rëy na rëyaay goo xam ne nii xëy na entreprise yu mag ñoo ko mën a ñoo ko mën a gañe Euh, ndax li ñuy wax transfert de technologie ak aussi léeg-léeg seen réew ci boppam ñooy financer projet yi loolu euh, excuse boobu rek la mën a am waaye bu loolu am na ay hommes d'affaires sénégalais yoo xam ne nii am nañ capacité gagner ay marché yu mag ba pare sous-traité ko ay entreprise nekk bitim réew ñëw liggéey ko loolu mën naa nekk mais pas le contraire c'est-à-dire di jox marché waa bitim réew ñëw ñëw di ñu sous-traité di ñu mosal ay ñamu bët loolu moom yenuwul maanaata moo fi am yenuwul maanaata moo fi am loolu nag war naa dakk wala mu d'accord jërëjëf euh, Alla Dieng mais tamit euh, est-ce que yéen tamit amu leen lu jëm ci wàllum jafe-jafe euh, ci ay financement ci soxol wàllum activité commerce yi. waaw am nañ jafe-jafe premièrement déggoo suñu biir parce que secteur privé dafa tas ku nekk nga wax. dafa bari ay chapelle secteur privé sénégalais ñaata entreprise boo nee boo nee boo nee CNES ne CNP ne MEDEF da nga naan UNACOIS 1 UNACOIS 2. waaw UNACOIS Yeesal ak ñeneen ah, ak ak bari nañ bon moo wax naa ko sànq tolluñu ne parti politique waaye xaajale ko googu. baaxul ci ñun. baaxul ñun bu ñu doon bu sañoon Lamine Niang dafa créé lu ñu wax coordination patronale du Sénégal organisation secteur bokk bokkandoo benn kàddu moom moo yore ko ñu ne ne day tournant boo liggéey keneen yore ko ëllëg loolu lancé woon nañ ko ba mu dëgër waaye yàlla def mu daanu boobaak léegi yàlla def mu gaañu yàlla na ko suñu borom yërëm boobaak léegi amul ko relancé waat un deuxièmement euh, financement moom am nañ ci ay difficulté ba tax na sax bërki démb invite nañ ma ci barab Euh, lu jëm ci finance islamique ak Malaisie parce que Malaisie finance islamique moo ko développé fii finance islamique dugg na fi mais demul na war a demee ba non ñaa ko xam mais ñun ñu ngi ci war a signé convention balaa yàgg du ma ci sore mais ñu ngi nar a signé convention ak BID banque islamique développement boo xam ne nii lu toll ak 10 milliards def na ko ngir financement islamique financement islamique moom dafay différence ak par contre bu ñu la labalee lañ la labal ngay delloosiwaat waaye nag la nga ci liggéey boo amee boo ci amee bénéfice ñoom dañuy jël 10 pour cent bàyyi la 90 pour cent yi donc ñi ngi négocier ak ñoom sotteegul mais bis bu ñu eggee ci signature dinaa leen ko yëgal donc financement moom ba léegi am na difficulté te financement bu doon am day accompagner économie informelle ndax toujours ñu ngi naan informel formel mais financement moo gën a gaaw ci accompagner ko parce que ku ci def sa dërëm nga war koo fay du la seetaan nga koy gérer nu ko neexee lay accompagner. waaw ah, loolu ñu ngi ciy mais mais mais li nga wax si li nga wax nii ne tey am na ay patron yoo xam ne. par rapport yeneen réew yi ñooñu seen état mën na mën na financer wala mu jàppale wala mu nekk ci ginnaaw euh, ay homme d'affaires wala garantie leen ci banque yu demee noonu est-ce que fii ci Sénégal lu mel noonu am na fi. dafay amul maanaam li may expliquer mooy France buy financer terre bi day fexe baa ay entreprise am ñëw liggéey ko mais Sénégal moom fan la fan la fan la man a génn Sénégal man li ma fi gis génn mooy am na ay chef d'entreprise yu mel ne COSELEC jamonoy Yoro Fall ak CSE jamonoy Aliou Sow gañoon nañ ay marché dans la sous-région comme Gambie gi parce que nekkoon naa Gambie am nañ fa marché tali yu ñu gagné wala Cameroun wala Guinée wala Mali wala yooyu ay entreprises sénégalaises mais lool bu ñu dem dañuy gagné marché interna dañuy gagné appel d'offres international rek am banque yu leen accompagner ñu dem réaliser ko mais du du waa Sénégal ñu leen accompagner pour loolu de Sénégal accompagner wu ñu sax ñi nekk ci réew mi di liggéey waxantuma la accompagner la ngay dem bitim mais dama gis euh, bu si mel euh, dafa am ci ni ñuy joxe ma marché yi ba ñoom tamit ñoo ngi jàmbat euh, lu mel noonu. kon confirmer nañ ñoom confirmer nañ kon li ma wax léegi nii Sénégal réew Sénégal secteur privé sénégalais la euh, extérieur la gën a jox kàddu que la gën a jox. léegi la mooy conséquences yi. ah conséquences yi kay mooy duñ créer emploi yi ñu war a créer ensuite ñii lu ñu lu ñu liggéeyal bi ñu rapatrier ko yóbbu ko biir réew bitim réew te waroon naa des fii ñu investir ko ñu créer di réinvestir di indiwaat yeneen unités yu bees di di def sax industrialisation di produire. bay exporté parce que li ñuy importé dafa bari moo tax li ñuy wax rétablissement balance commerciale mënugul am parce que li ñuy importé dafa bari. te war te waroon nañu dem bay bay bu ñuy importé di exporté bu ko defee mu xaw a def nii mais fii ne li ñu exporté bariwul li ñu exporté bariwul à part haricot à part manga ak euh, quelque fois affaire u xaal ah ak ay darkase. Mm-hmm. ah bu njëkk dañ daan exporté poisson bari bari ak ay crevettes fruits de mer. mais melul ni mu war a mel bon bisaab temps yi ñu ngi koy traité di ko yóbbu bitim réew certes mais bëriwul ni mu war a li mu war a mel te loolu suñ ko encouragé woon danañ dem ba li ñu wax rétablissement de la balance commerciale. mais mais yow ban proposition wala yéen ban proposition ngeen jàpp bu ñu ko defoon tey importation bi ak exportation bi dina dem ba tolloo. du tolloo gi sax na jafe waaye importation bi dana wàññi ko exportation bi yokku loolu mooy Sénégal dafa war a accompagner li ñuy wax industrialisation ak industrie de transformation am mais dañu sàggan ba ay nit ñëw jël ko yóbbu ko transformé ñëw di indiwaat duñ ko jaayaat est ce que loolu yoon la. est ce que am nañ doole euh, transformé. nguur gi moo ñu mën a doole na ngir loolu. parce que nit ku nekk sa entreprise nga am yéene ak sa li la banque di lebal ngay xëy ko gont di fay sa salaire mais nguur gi moo war a am programme spécial boo xam day génne xaalis teg ci table ji accompagnement jàppale ñu melo man am naa unité industrielle boo xam ne nii ma xool en deux cent dix deux cent quinze millions moo ko war a lancé mais tey sama moyen bopp ak ñi ma séq laa ko lijjante mais gisuma bu ma gestu ma gis nguur gi banque ñaari banque ñoo ñëw te bu ñu la waxee sa sa taux d' intérêt da ngay xoolaat sa étude. di xool ndax dañ ci gërëm est ce que mas ko sollicité nguur gi. non parce que nguur gi du ma ko sollicité parce que nguur gi appui institutionnel la man a def mais banque yi ñoo lay financé mais nguur gi. affaire affaire mu garanti ko non am na soxla gën a gaaw garanti gis nga pandémie bi ñu jógee dañu tegoon lii de deux cent milliards yoo xam ne dañu ko war a def pour entreprise yi mais ba léegi entreprise informelle amuñ ci jotuñu ci entreprise yu mag rek ñoo ci jot te loolu dénoncé naa ko ci kanam président de la république fii jam ñaajo loolu kay ñu bëri déggoon nañu ko moom nga xam ne ma ne ko monsieur président ñun dañuy ragal ne deux cent milliards yi waa économie informelle duñ ci jot entreprise yu mag yi ñoo ko nar a xëccoo sa statistique yi sa réew joxe yi sa ministère joxe mooy ANSD 95 pour cent bu économie Sénégal PME PMI la ak économie informelle loolu ANSD moo ko joxe du chiffre yu jógee ci asamaan si loolu ci kaw mais xam nga àll li nga wax nii tamit dafa am loo xam ne moo koy dëggal muy port dama gis ne ñoom bi ñu defee seen chiffre d'affaires xaw ma ay mille quelques milliards yoo xamante ni def nañ ko ndax tey port. soo gisee ne bu ñu defee yenn résultat yi rek mooy li ñu dugal ci réew mi euh, dafa bëri ba jéggi dayoo. barki démb bi ñu COSEC invité fële ci euh, benn benn hôtel fii ñuy wax ci affaire lu ñuy wax trace nga xam ne tey soo amee sa conteneur bu jógee bitim réew ba bu egsee Sénégal fu mu jaar sa portable rek mën nga xam fu mu jaar ak lu ko fa téye xam nga xam nga kii day gën a gaaw te bu njëkk da nga daan téléphone di laajte laaj léegi sa portable mën nga ko ci ci benn ci benn benn plateforme. ma ne ma ne ma ne directeur COSEC ma ne ko na ngeen fexe nag ba. ak douane douane sax am na ku représenté woon douane ma ne ngeen fexe ba trace bi ngeen créé pour conteneur bu ñëw ngeen def ko pour conteneur yuy dem parce que conteneur dañu war a jóge Sénégal dem ci yeneen réew te loolu buñ produire di exporté duñ ko mën a am donc Alla Dieng ak UNACOIS ASL ak président Cheikh Cissé président national UNACOIS ASL ak experts yi ñu yi ñu wër yi liggéey ak ñun yu bare bare bare ñi ngi xool nan la Sénégal mën a yokkee industrialisation si jël matière première di ko transformer di ko yóbbu bitim réew te loolu am nañ capacité bi rawat na Zelekaf bi mi nga xam ne mu ngi mi ngi mi ngi ubbeeku. te Zelekaf marché marché africain la. wax ci euh, Zelekaf boobu noonu euh, lan mooy solo si dëgg-dëgg boo ñu lay expliquer. xam nga Zelekaf li tax mu jóg chef d'état yi nekk ci Afrique. 54 ñoo xa ñoo xalaat depuis euh, li unité africaine UA ñuy waxtaan ne war nañu am marché national war nañu am marché africain marché continental te loolu bi ñu moo nar nekk marché bi gën a rëy ci àdduna bi ndax 1 milliard 200 millions de consommateurs la war doon c'est 54 pays boobaak léegi nag yéene ju rafet lañ ci am di teg ay jéego maa ngi sant maa ngi remercier ñoon personnellement parce que madame Assome Assome Diatta mooy ministre commerce bi jiite ministre commerce su pays bokk ZLECAf yépp ci 54 pays mais 54 pays yooyu d'abord ZLECAf juillet bële 2020 la waroon tàmbali. mais mbas mee tax ñu toxal ko ba tàmbali di 1er janvier 2021 mais ma yëgee ne sur 54 pays africains 36 rek ñoo ratifié te 36 yooyu ratifié. 5 ñoo ci pare. Ah du du ma leen lim nag. parce que bu ma limee dinañ xam ndax Sénégal bokk nañ wala bokk yi damay bàyyi noonu mais 5 pays ñoo ci pare kon xam nga loolu demagul. demagul fenn waaye nag mënees naa xalaat ne li tubaab naan lentement mais sûrement. mais ah. mais mais ni ko waxee nii mais ni ko waxee dafa mel ni Sénégal bokk si de si juróom pays yooyu. du loolu du ma la ko wax. Ah. du ma la wax daal bokk na ci mais dama la expliqué ne. dañuy ah, jëm damaa jàpp bu si bokkoon moom dig ne ma bokk na si en tant que ministre boo xam ne sax moom moo jiite euh, réew yi bokk. ci Sénégal waaw mais loolu na nekk kumpa ñëpp du ma ko wax. léegi dama ne euh, mais ñi ngi parce que ZLECAf li li ko yëkkati mooy Afrique daawul commerce ak Afrique ni mu waree. maanaam ñaar réew yu taxaloo seen commerce du demee ni war a demee lu dul nekk informel te ñaar réew yi boo ci jàpp rek mi ngi commerce ak bitim réew espace Schengen commerce bu jéggi dayoo xaalis bëri di dem ñuy importer léegi nag ñu dem yàgg ñu ne Afrique lu tax du commerce ak moom. léegi nag moo tax ñu bu ñu ubbee marché bi dana am lu mën a jógee Kenya ñëw jar Sénégal dana am lu mën a jógee Sénégal dem Côte d'Ivoire dana am lu jógee Côte d'Ivoire dem Afrique du Sud mais euh, dafa am pays na ci biir yoo xam ne ñoom ZLECA wala sans ZLECAf ñoom déjà ils sont bien lotis Nigéria Afrique du Sud euh, ni ñu ko waxee sax euh, Égypte. Maghreb bi aussi boo duggee euh, Tunisie Maroc Algérie ñoom déjà dañu dañu développé ndax énergie dañu développé ndax tourisme mais dañu développé aussi ndax industrie kon ñoo loolu bu dee UEMOA boo nee Côte d'Ivoire Ghana ak bu dee CEDEAO da ngaan Côte d'Ivoire ak Ghana ak Nigéria mais bu dee UEMOA boo nee Côte d'Ivoire Sénégal ak Burkina Faso nga ci teg kon dool yi tolloowuñu waaye nag marché bi su ubbee ko à condition que Sénégal. ñu produire ñu produire bi jàppale ñu.

ne ko ñi ngi bay pomme de terre ak oignon. muy yàqu muy yàqu. te gis nga Abdou Khadre su ñu bayee pomme de terre wala oignon ak carotte diggante bi mu ñoree ba bi ñu koy consommé 40 pour 35 ba 40 pour cent day nëb te loolu bu amoon entrepôt dana fa mën a def 6 mois wala ñu am industrie de transformation comme olive yi di jóge bitim réew ñu ko def ci ay pot nga xam liquide bi mu àndal dana def 1 an 2 ans sax du yàqu. Mm-hmm. mënoon na ko def carotte. mënoon nañ ko def mango sax mënoon nañ ko def sax oignon mënoon nañ def def ko wala ñu sur congelé ko loolu amuguñu industrie yi ci yi ci dugg ñu ngi ciy xalaat nag ñu ngi ciy xalaat ak suñu partenaire même entreprise sax ñu ngi ciy xalaat ak suñu partenaire ba moment bi ma lay wax ni maa ñu ngi ci liggéey maa ngi ci yore dossier boo xam ne nii INACOISL moom ma ko jox ak yeneen ñaari expert ñu ci waxtaan ak ARM ARM mooy agent de régulation des marchés voilà waaw mais mais mais euh, moom la président Macky Sall wax ne relance économique bi daf si sóoraale bu baax wàllu mbay mi euh, Sénégal dañuy mbay mbayum noor comme ay soble ak ay euh, demee noonu ay chambre froide kese loolu politique bi état bi moo si farlu wala lu tax. ma man Sall ma njëkk a jaaxal mooy am nañu ay chambre froide jam ñaajo marché international. Mhm. bi ñu koy tabax ak euh, plate ak kii gare des gros porteurs ñoo taxaw te bu ci nekk cinquante milliards la te Turquie ñoo ko réalisé mais ba léegi ubbeegul Abdou Khadre loolu interrogation bu ma jaaxal la. te xoola ñun dem nañ pose première pierre ba dem nañ ci visite de chantier dem nañ ci inauguration ba ay machine yu ultramarines yu am doole. bu ci bu ci def taqaloog bureau fii ci jam ñaajo mais ba léegi ubbeegul ba léegi ubbeegul d'ailleurs sax li gën a kii mooy Lamine Niang lañ ko tuddee président chambre de commerce. te inauguré nañ ko. ina ma inauguration bi sax président turc Erdogan dafa waroon a ñëw mais mujjul ñëw mais Macky Sall moo inauguré man fekk naa ko te ba léegi ubbeegul fonctionné gul te boobalee man an et demi loolu interrogation bu ñu lancé ministre du commerce la na ci d'accord léegi euh, waaw léegi wax wax waxal ak ministre bi Assome Diatta. waaw kon Assome Diatta madame Assome Diatta euh, marché international ñu ko wax MIN ñu tuddee ko président Lamine Niang ak aussi euh, garde gros porteur liggéey nañ ko ba inauguré ko boobaag léegi non fonctionnel. Mhm. non seulement ñi ngi bëgg mu mu ubbi mais dañu bëgg sax ñun ñu gérer ko. mais bëgguñu ñu koy bàyyi Turquie ñu koy gérer comme ni ñuy gérer aéroport madame Assome Diatta ñu ngi lay loolu su amee ñun d'accord ñu ci. président de la République ñu ngi lay ci. na ko na ko na ko secteur privé sénégalais gérer. voilà léegi euh, Alla Dieng ñu wax ci nag euh, kii cher yi maanaam njëg yi fi ne nii gis nañ ne presque loolaal dafa yokk euh, lan moo waral loolu. waaw du lépp nag. dafa am yokk waaw dafa am yokk te gis ngay yokk sax ay produits luxe la produit luxe moo ci ëpp bokk. am na dans le premier ministre yu yokku mais ñun dañu leen di wooyee tension am na ay tension yoo xam ne nii tension gérable gérable mooy du yàgg waaye ñun gënaluñu parce que gis nga commerce gis nga commerçant amul yéene jaay lu seer commerce li moom li commerçant li mënul mooy jaay perte mais bu sañoon du jaay lu seer parce que bu jaay xam nga pouvoir d'achat sénégalais surtout sénégalais pouvoir d'achat sénégalais épée ni war a épée maanaam nit ñi dañu nekk ci survie soo xëyee yaa ngi lijjanti dépense. Mhm. loo loo reere mooy priorité donc luxe am nañu ko xalaat mais ñu bëri taluñu ko. waaye survie ngay gën a tal léegi nag euh, mbas mi laal na ci état bi aussi laal na ci ci taxes yi parce que souvent ay taxes la yaakaar état bi taxe lay dundee donc nag fu mu yéegee taxes yi rek mu feeñ ci prix bi produit prix de revient mais commerçant bi da ci teg marge bénéficiaire nag ngir am lu mu tere moom itam ngir dajale xaalis mën a investir ëllëg ak dundoo ak njabootam loolu kenn du ko ko xañ. ñun bi koor gi jub see dañuy ñaan yow sax eh, defe naa sa gars yi ñoo defoon élément bi ci seen journal ma wane ne ñun inaakoyesen ñu ngi ñaan suñ membre yi leen nañ wàññi seen marge bénéficiaire ba koor weesu ndax jamono ji neexul bi ñëpp la attaque amul kenn ku mbàyyi même ñun ñu def ñu laal comme bu la laalee nga defaat sacrifice encore di wàññaat sa marge bénéficiaire dafa metti mais dañ leen ko ñaanoon moo tax xoolal biir koor gi bi ñu bëgg a wari mais ñëpp géré nañ ko am na prix loolu mooy prix homologué prix homologué état mooy contrôler pour mu a yokk mais prix de luxe nag moom état mënu ko contrôler état dafa mën a contrôler li ngay jëndee euh, ensemble jean wala li ngay jëndee chemise chemise longue manche. ay nen ak ginaar ak yooyu yëpp. mais mais nen nen bu amee problème grippe grippe affaire bi. moo laal secteur bi. même ndawal gi dafa yokk ndawal mais ndawal ndawal gi aussi dund gi. dund gi am loo xam fii lañ ko defaree mais am loo xam matière première extérieure lay jógee parce que maïs léeg-léeg liñ ci am du doy. bi tamit ak fer beeg yëpp. boobu moom war naa wàññi ko non dañ ko importé wala li ñu fi liggéey bëriwul mais ciment dafa war a wàññi ko ndax concurrence yi am ci ci ci ci transfert d' argent bi moo war a am ci ciment bi ndax ñetti usine ciment su fekkee dañuy lëkkaloo seen biir ngir fixer benn prix loolu mooy dumping loolu nguur gi da ko war a xeex war a concurrence seen biir njëg yi comme ni mu amee fii ci ni mu amee fii ci ci kii voilà. Euh, jërëjëf euh, Serigne Al Dieng léegi euh, waxtu wi jeex na léegi nag laaj bu mujj bi ñuy laaj rek moom mooy fan yi nga xamante ni tey moom la ñu génn dañoo gis ne dafa am benn sommet boo xam ne Emmanuel Macron daf ko organisé woon France woo ci nag njiitu réew yu Afrique yu baree bare bari ngir ñu waxtaan ci lu jëm ci wàllum financement économique ci dénnu Afrique yow lan moo ci sa xalaat. d'abord ñun Afrique suñu séquelles yi ñu traîner ba léegi nii. mooy esclavage o colonisa colonisation loolu waa bitim réew ñoo nootoon ëpp ñu doole ba léegi nii euh, Afrique mi ngi traîner bule yooyu waaye teewul euh, Afrique am na ressource d'ailleurs Afrique mooy enjeu jamono ji sax fi mu ne nii. enjeu de àdduna àdduna Afrique mooy enjeu bi léegi nag mais su ressource yooyu li muy bari bari bari bari li muy dun dun dun dun machine ba koy exploiter sax bitim réew lay jóge parce que ñun amuñoo moyen exploiter donc à la couleur alin Afrique il faut mu lëkkaloo ak waa bitim réew maintenant nag nañ farlu bañ a sàggan ba ñoom ñu koy ñëw di ko ngàcc mu mel ne suñ deret ñu koy màcc yóbbu ñu koy manque di yóbbu loolu nag ñun ñoo war a bañ loolu waaye téewul det moom am na dañu yore ay bor parce que dañu néew doole léegi nag dem fexe ba ñu waxtaan ba euh, réew Afrique yi réew àddina bi di xool financement euh, économie Afrique ah mooy wane ne ñi ngi soxla ndimbal ba léegi nii rek Euh, man nag d'accord ma ñu tàllal loxo di wo di woyaan di ñaan mais dama bëgg ñu neen partenariat partenariat mooy win-win nga gagné ma gagné léeg-léeg sax da nga gagné lu ëpp li may gagné léeg-léeg aussi man damaa gagné lu ëpp li nga gagné mais gagné gagné ku nekk gagné mënut a ñàkk waaye dëkk ci tàllal loxo di yalwaan loolu moom dañ ko war teg su parce que Afrique dañ ko appauvrir mais Afrique pauvrul. d'accord léegi euh, ña na ko appauvrir. ña ko appauvrir mooy ñun d'abord suñu leader yi ñi yàgg nekk président président bu ci dee. la la la ñu bàyyi la fay bàyyi ci alal kenn xamul mu toll moment boo xam ne nii am na ñu sonn am na sax ñoo xam ne seen fortune yi fi bàyyi bi ñuy dee moo ëpp sax seen budget réew est yan na maana te xoolal tiran yi fi nekk yëpp ay Mobutu ay Bokar Sarr ay yeneen ak ñeneen ñeneen Senghor daal laa gis ne jóge na fi ba yóbbaalewul dara ndax euh, bàyyi fa sax luñ doon na. waaw léegi euh, xëy na Abdou Diouf aussi mën na ca bokk. yàlla dund ba ca kanam. d'accord léegi 30 secondes. Euh, dette bi moom ndax jàpp nga ne danañ ko baal Sénégal. dañ ko war a baal Sénégal te gis naa aussi coalition mag boo xam ne ni ñoom Mody Guiro ñoom Youssou Ndour euh, El Hadj Momar Samb ñoom ñu ngi ciy waxtaan ak aussi Cheikh Gueye di def benn man woowoon nañ ma sax dama ñàkk jot pour bëgg parce que dama bari ci activité yu ma nekk mais dette bi ñu baal ñu ko mooy yoon dañ ko war a sàkkoo waaye bu ñu ko baalee nag dañu war a am beneen beneen doxin wu bees ngir bor bor bi bañ a ñëwaat même bor bi mbas mi war naa tax ñu baal ñu ko. jërëjëf euh, Alla Dieng ñoo ngi lay sant gërëm. maa ngi lay sant di leen gërëm asalaam. jërëjëf euh, Alla yi moom moo nekk directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal moo nekk tamit euh, président union des forces citoyennes mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmb ak